ñaarel bi waxon timit la timit ku neewi wax nga déggee ci ne nekk kon jigen jo xamne dafa bëri wax fum tollu ma ngay wax mbolo mo dem kaddu ngay dégg ak xàqataa taccu ya koka jabar la way du soxna waaye jigen jo xamne buy wax sax bo dëpput sa nopp ci gémmañam do xam la muy wax ngir kersa gu jéggi dayo ndax ñom ñaar ñooy lëkkalikoo ku ñak kersa sa bëri wax waaye tamit ku néew ku am kersa say wax néew su ko defee nag wax ju bëri baaxul ndax yàlla ba muy xas mbaam dafa ne inna ankaral aswaati la sawtul xamiir wax ju bëri bu doon tax a falu mbaa may jiite nit ñëpp mbaa may jiite ci mboolem mbindee fi yàlla yi waaye moo ci gën a yées bokk ci ñi ci gën a yées wax ju bëri lim bon a tax yonent bi daan wax ne man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxiri fal yaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba waxal yiw bu yiw jeexee rek nga noppi la nga xam ci yiw waaye yiw sax kenn mënu ko jeexal waaye nag wax yiw nag moo gën noppi su ko defee nag kon soxna su baax dafa war a wax farata lay wax bu farata jeexee mu noppi soo ko ci téléphone farata la ciy wax bu jeexee mu noppi waaye nekkul kuy dëpp téléphone ci ay noppam bu dégg bëccëg di tartar yi wax bu guddeeg bëccëg yaa ngi woote bala nga war na def ci kër gi sax day mujj tardé kooku ku bëri wax la te wax ju bëri baaxut ci jigéen moo waraloon xukamaa wi di wax ne wax su fekkoon ne xaalis la noppi moom day mujj nekk wurus bi ci tegu tamit booy takk denc dencal borom borom ak doylu